والقلم وما يسطرون jërëjëf sëñ bi kon ñu woo ki nga xam ne mooy sëñ Maxtaar Kebe mu ñëw indil ñu moom itam li nga xam ne ay boole la ci téere borom bi subhaanahu wa ni nga xamante ne eh, sëriñ Saaliwu jaaroon na fi léegi indil ñu ay boole tama waxoon ne yooyu daa bokk yi nga xam ne yi daara ji amoon ci la bokk Eh, te daa bokk ci tënk yeeg takk yi nga xam ne baat yu nuroo yi dana tax dootoo ko jaawale te danañ ci natt mokkalum nit itam bismillah aoudu billahi min alsheytaani arrajim bismillahi arrahmani arrahim asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñi ngi duyu ñëpp tey siyaare ñëpp xam naa sunuy nuyoo nun ñu féete nii teg na ci yeneen loxo yu ko war a jotal ak sunuy cant waaye li ñu dajale fii rek muy alquran ni ko bokk yi jiitu waxe te muy waar wu yaatu woon ndax daara boo ci demee da nga cay fekk kay jàng ak kay bind ak kay liggéey loolu moo ko sosoon ñoo ñi nga xam ne ñoo fi jiitu woon di ñooñ démb ña nag andil ñu lii tey bañ man koo jariñu ñun ñooñ tey ñooñu ñoo tuddoon mag ña xam naa maa ngi ci doon teewlu léegi ay bayit yu néew benn shaa'ir waxoon ko ci ci ñooñu nga xam ne ñooy mag ña dafa ne woon akrim bi qawmin akramu alqur'ana wahabu lahu al arwaxa wal abdaana loolu am solo la li tasira min garsil huda bustaana jooju nga xam ne moom la wax rek moom ci gën a itteel muy mag ñi daj nañ lu ne ngir lii agsi fi mu agsi tey ba lii agsi fi mu agsi tey ci seeni yëngutu ak seeni dal boole ñi nga xam ne mooy tënk bi nag ne ko mbokk mi waxe léegi muy day boo baat yu jóokaloo jaxasoo niroo te benn ci boo ko bindewul nam war a doon dañ naan la danga koo yàq mbaa def laa daan ñi ko doon defit jékkuwuñu woon àdduna jekk gu toll ne mën a am ay machine wala ñu tudde ko benn technologie boo xam ne mën nañ koo jëfante bay mën a jàllalante ay message waaye kenn ku ci nekk sa taatu guy ga nga wéeru ak sa taatu rat ga ak sa taatu geneen garab gu mën a doon fa nga toog bind ci loo xam ne kaca kajoor du ko weddi kaca njaambur du ko weddi te it lu xam-xam am tatawur lu mu développé développé du ko weddi kon loolu rek mu mënu ko féete kaw xam naa danaa ci tënk rek ca nañ daan binde ni ko sama mbokk mi waxee léegi muy sëñ Saliou sàll ci baat yooyu nga xam ne mooy ngeen ak laañ ak mboccoor ak riidoog yu baree baree baree bari euh, noonu mu mel ni mu ko waxee rek dama ci bañ a delluwaat waaye dafa am yeneen baat yu bindoo waat noonu ni ki baatub zaka zaka dafa ñëw ñett yoon benn bu ci nekk ak nam ñëwee moo tax ma ngi ne woon zaka bañ ndende juróom ndende nag mooy ñaar yu dend ñaari sàdda yu dend zaka bii may njëkk a wax nag benn sàdda képp lay am su ma noppee danaa waxaat benn geneen sàkkaa goo xam ne ñaar ñaari sàdda lay am ak genn sàkk sàkkaa goo xam du am dara ci sàgg kon loolu mooy baati ndaanaan ñu ne zakka bañ dende juróom ñu ngi koy tëkkee jawafa waqama jawafa qama boog jawafa qama muy juróom ñu ne jazaau man tazakka tëhi kaaf gi dong ngay sàdd wa man tazakka ak fa innama yatazakka faandaak kaaf ga dong ngay sàdd xad la man tazakka ca laala kaaf ga dong ngay sadda maa lahu yatazakka ca lay layli kaaf ga dong ngay sadda bu ngeen xoolee foofu kon zakka bi kaaf gi dong moom lañu sadda mu am geneen zakka goo xam ne nag ndende la muy lan da ngay sadda euh, raasa yin ga sadda kaaf ga ñu ne zakka ndende yat ila an tazakka ca naasiaat laallahu yazakka ak allah yazakka ca abasa ma saka jam-jam bajjub nóor maa zaka moom saddawul ci zaal ci ca raasayin ga saddawul ca kaaf ga léegi nag bu ñu xoolee baatu bi saka lépp juróom-ñeent la ñu ne zakka njannaay laal daanu nóor muy zakka maa zakka ga ca ga ca nóor soo ko soo ko sàddaa rek danga nga daanu kon juróom-ñeenti zakka ngoog juróom njëkk ya kaaf ga doo nga sàdda ñett yee ca tege kaaf ga ak raasayin gaa sàdda zakka gu mu jigéen ak dara sàddawut ma ne sakka njànnaay laal daanu nóor bijj daanu ma ñu ne bijj daan ndaw yet baat yu jekk ci bijji te ku ko bijj daanu ñu ne bijj daan ndaw yet ñu koy tënke adwa ban la amtaluhum tahi dhurriyatuhum tuur wala danahum jidaal nga xam day pour nga def ko am amsaaluhum ak wala danahum lu jàpp ni la ñu ne bijj daan ndaw yet fa xasaf naa ñëw na ci alxuraan ñetti yoon waaye bokkul bindiin fa xasaf naa xasas man xasaf naa xanka tongoo kub jorngel muy xaadam dellu la ak sin subaw waaye nag fa xasaf naa ca tëhi ànd war na moroomam muy xasaf naa ga ca tëhi laañ la laañ mooy deel ju tooy la moo tax ñu ne baatu faraqta rek faraqta ñu ne faraqta tëhi fa ida faraqta sharahi ñu ne xaaftahi nganj sarahi siddatahi jam-jam sarahi nga xam ne baatu faraxta rek nga wax waaye boo demee ci fa isa faraxta dañ koy oyofal ba noppi mu nekk ngaax muy ak xëyit kon jaxasoo googu boole yi di jaxasoo xam naa jorngelug ndaanaan sëñ bi jaar na ci léegi muy sëñ Saliou Sall te bëgguma dara ndax comme day dugg ci kii bi du jar delluwaat waaye baatu bi yu siixuhu birima fa yadmaxuhu lën bi ñu ne xuuxoo njommoor yaar mooy xuuxoo googu pour nga def ko ak xaaf day yomb te ak xëyin la njommoor bokk na ci li sëñ bi doon wax léegi mooy ak xëyin ñu ne yu si xuuxu birima birima ak baraan baraan dafa bokkul baraan mooy baraatun birima nag mooy ibrahima ñu ne yu si xuuxu birima fa yadma xuuxu lan bi xuuxoo njommoor yaar njommoor mooy xëyin googu le baatub asumma assumma duaa yaar la ñëw ci alxuraan nam léeg ruum assummu duaa nag bàjjub lan bi boo demee ci sóotu lan bi yaay summ la fay taxawe goote song miim njànnaay goote mooy genn ak maaska ba noppi son song ak miim njànnaay moom la ma ngi naan dañ ko tënk ci dadami sukuku siwamu dadami zukuku siwamu darajaati man nashaa'u yaar lan xaam ak mbargaan min suu ima bushira nahli dhurriyata man xamal naa lisraay kullu man alayha yaar la ñu ne mareem mag bayaan mu ne kullu man rek yaar mareem mag bayaan dikru man maay ak dikru man qabli yëpp nga lën bi mundiru man ca naasiaat nga xam ne kon boo ko xoolee foofu gel genn dafi dëkk nga def ko run nga tën win ko te ndekkete genn masque rek la taani dugul coon yet taani la du dog ba noppi nag si lañ war a tudd ci siin coon la ñu ne athuluthaani jigéen min alawthaani xajji yastaxiithaani laxqaaf nga xam ne kon du dog te it cuun lay doon boo demee ci walladaani benn borom xam-xam daf ne woon morom ji dama lay fitt kaang mu ne ko fit gi may bëgg a fit du ma jaral yor waxal baat bi rek ma dégg mu ne ko fit naa la walladaani yaatiyaaniha mu ne ko walla day lomb zaani day naar yaati day dog yaaniha ko ko dog mu daan la ne ko jëralu ma sax jël bi ak xalima kon mu ne ko wala day lomb zaani day naar yaati day dog yaani haa ko ko dog mu daanu ñu ne bii geesu mboccoor naayo bii geesu bii mooy bii la te du nekk bii kon day geesu day geesu mooy day jëm ci borom ba noppi nekk mboccoor di siin su tooy ñeent yoon la ci alxuraan allah tusrika bii xaj laa yusrikoona bii nuur li tusrika bii anka ala an tusrika bii luqmaan nga ne bii geesu noonu la toll ñeenti yoon la ñëw ci alxuraan benn waaye dafa bind ne moom luñ bind bu ko seetloo dana ci génne bi yàq kenn kenn ki ne ko man du ma bind ba génne bi yàq nga ne kon loolu ak ndamonte la woon xam naa mooy bi may mujjee bi mu tàmbalee bind baqara ba agsi ci nastan sixu ca jaasiyati mu def ko ak xaaf sëñ daara bi di topp ba egsi foofa ne ko ah ngóor daanu nga mu ne xaa mu ne ko kii xaadam dellu gu wëcc la daal di ko naan nag boo demee ca mag ña ñoo ne waxoon ne gelle wi ces ngeen njeego njeego muy juróom-benn maanaam sax laan fan salaxa laaraab fa idan salaxa baraan fa yen saxu laahoo nga hajji nas laxu jaal nas tan saxu ca jël seeti moo la daan kon noonu jàmbar googu technique yooyu te jëlewuñ ko ci naar ñoo ko fexe ci seeni diggante tool ya xat ba cin la garab ga fexe ba bind alloo ju tege wuti daa ak xalima fexe ba bindu kaamil baqara ba naasi te jàngoo arud jàngoo bayaan jàngoo naxwu jàngoo sarf la cay faa'il ak la cay maf'uul ak la cay sarf lépp xamoo ko loolu kon ak njàmbaar mënu koo féete kaw loolu nag buñ ca demee ba ca biir ci la Cheikh Saalihu Mbacke radiyallahu anhu mas na ma cee nettali wax ju gàtt mu ne Serigne Touba daf ne boole yii ngeen di jàng bu fekkee alxuraanay toole tool bi boole yi mooy ñag bi ko clôturé moo ko teeroo nga xam ne kon alxuraan bu amuti boole pour nga daan borom day day yomb ndax baat yi ni ñuy bindoo la ndax fa xasaf naa ak fa xasaf naa mën naa génn ci maxaarijul xaroof mais laañ génn pour nga xam ne laañ la ba ànd mu war moroom ja bàyyi bàyyi fa xasaf naa gay de nekk siin su loolu ak njàmbaar mënu ko feete kaw dafa am góor gu baax di bind alxuraan ba agsi fil xisaami ca suura bi mu ko bindee mu def ko xaaf soxruf bokk bi mu ko defee ak xaaf sëñ daara bi toppal ko ne ko ba nga tàmbalee bàqara ba fii ne yaa ngi door a yàqu baat mu ne ko baat bu ma yàq mu ne ko fel xisaami gi xaadam dellu la mu ne ko indi allooji mu dex ko mu daal dem taal jàngu ay garab lañ daan fénqale rek fanaanee jàng moom li muy jàng alxuraan jëpp fel rek lay xool ci alxuraan ci guddi gi ba xëy ne minal jinnati wan naas daal di xëy sëñ daara bi ne ne ko maaleykum salaam mu ne ko baat bu ma daanoon démb mu mu ne ko filxi tongu yaar ba alquran jeex filxi yaam ak filxi saami la asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa allah macha allah jërëjëf eh. waaw sëñ Mbacke waaw allah sëñ euh, Makhtar Kébé euh, mu sëriñ maanaam euh, mën na see fanaan yenduwaat moom daanaka ni ko jekkoo borom bi la ko si defal ci wàllu boole te itam nag mag ñi amoon nañ fu la sëñ ndax Euh, comme masque yee tomb yi yëpp dañu ko sos si alxuraan ñoom bi ñëwee ñu xool ñoom danañu mën a jàngale seen i gono comme xamuñu ay mudaaf xamuñu mudaafoon ilayhi xamuñu faala ñu ñëw fexe ba ñoom itam ñu mën see génn kon dafa mel ne ñoom itam def nañ euh, liggéey bu kawee nii la ko defee woon maatam itam waaye la ma si gën a jaaxal maatam moom pulaar la ko joxe ba mu jeex tàkk tàkk tàkk tàkk <laughs> tàkk loolu moom ak may la sam sëñ Maxtaar ñu ngi lay sant bu baax yow sëñ Mbàkke jërëjëf jërëjëf sëñ Mbàkke di sant itam baax sëñ Maxtaar maam sëñ Modou Diané hmm. mi ngi sàkkul ñaan Euh, maamam sëriñ sëriñ sëriñ Maxtaar Jaane mi nga xam daa bokkoon si bindkat yi sëriñ Tuubaa yi Moodu Jaane mi ngi sàkku euh, ñu defal ko ay ñaan bu baax a baax mhm. jërëjëf jërëjëf sëñ Mbàkke Sourang jërëjëf sëñ Kebe maa anta bi ni'mati rabbika bi majnuun